ñetti malfaiteur seen xam-xam màcc toj ay boutique woo xam ni day jaay ay habillement ñoom day daanu nañu ndax premier mars 2024 benn commerçant buy wuyootu turu MK Ndiaye moom mu ngi doon doora ubbi ab boutique boo xam ni day jaay ay yére ak i dàll foofu ci Saly daal benn guddi ñetti sàmba boo yile dal di yoot dem ci magasin ba daal di koy toj ba nu ko tojee itam dañoo ñëw fekk porte bi ñu défoncé ko daal di dugg ci biir boutique bi ñoom ñett nag ku ñuy wax M Dieng la A Fall ak B Cissé ba ñu duggee ci biir boutique bi ñu daal di jël pantalon yi waa ji jaay yépp jël semis ya jël dàll ya jël bone ya ceinture ya saag ya ak parfon yoo xam ni am classe la def cher loolu ba ñu paree dañoo jël lépp daal di koy def ci saag. diri ko ñoom ñett ni fes ni menteñ daal di wuti nag fa nga xam ni fale nuy ñuy bu nuy sàcc muy quartier tefes bu ñu ñëwee ba quartier tefes dugg ci seen kër daal di séddoo si jàmbur yi nu sàcc bee siise mi nga xam ni moo jiite cerveau bande bi moom la ñuy dénk lépp lu jëm ci wàllu marchandise yi nu wërta mën a jaay mu denc ko këram te marchandise mu takku lay doon mu denc ko kër gi nga xam ne mooy këri papaam lu takku lay doon keneen ki ci des itam ñu daal koy joxub xaaj mu daal dem keneen ci ñoom itam mooy garde dàll yi bu ko defee ñoom dinañu mën a toog xalaataat naka lañu koy jaaye lu toll ci benn semaine ñoom ñetti sàcc yii le wala malfaiteur yii le dañ doon jaay li nga xam ne moom lanu sàccoon lu jëm ci chemise ki dàll ak yeneen ak yu ni mel waaye njaayum xel leen ko doon jaayee ndax ndànk lañ ko doon jaaye ba li ëpp ci marchandise ma daal di dem ci askan wi waxtu woowu nag ki ñuy wax MK Ndiaye moom mu ngi doon xool yeneen boutique yoo xam ni dina mën a lëkkaloog ñoom ndax moom day bëgg a dee ndax mënta ubbi ab boutique te amu ci dara ba muy wut ay renseignement nag kaa yi yëg see gun ci boutique yooyu mu daa di bàyyi juróom benn fan ci weeru mars ñetti band yi daal di ñëwaat waaye bi ñëwee dañoo ciblé beneen boutique buy jaay ay yére boo xam ne benn jigéen moo ko moom kuy wuyoo ci turu KH Mbay bi ñu ñëwee lan fa sàcc yépp bi ñu ko xaymaa toll na ci quatorze million te benn stratégie bi la sàccee dañuy ñëw défoncer porte bi daal di dugg ci biir def li ñuy def bu ñu demee yóbbu seen kër tefes toog xalaat yan pexe la def ngir dem jaayi ko waaye dañuy seddoo kii day jël dàll yi kii jël tubéy yi kii jël semis yi ñu daal di def seen dil bu kii jëlee dàll yi ñu ne ko yow yaay jaayi dàll yi yow mi jël chemise de classe yaa koy jaay xamal li nga koy jaayee yow mi jël parfum yi noonu kenn ku ci ne ñu def répartition des tâches daal di dugg dëkk bi far yàlla nattu leen kenn ci ñoom di wuyoo ci turu afaal daal di dem néegam jël ay tuba yu bari ay semis yu bari yoo xam ni benn bu ci nekk xaalis lay jar daal koy may magam dee faal mag ji automatiquement mu daal di changé ni muy solo commencé di sañse waaw xam naa nag da doon sànce pour nax xëy na xale yi ñu ne eh diw de am na xaalis léegi diw de léegi macha allah diw de léegi affaire yi feeñu na ko yooyu xam na tur woowu la doon wut moom sañse wut pour dox yi soxla waaye da doon sànce doon def affaire euh, maanaam di di wone boppam ko affaire marketing jël ay photo yu baree baree bari chemise bu mu takk ak ak jiinam ak wala super sam boole ko dàllam yi baax photo wu daal di dajale album foto yépp nag commencé koo tas ci réseaux sociaux yi di ko tas réseaux sociaux boo dugg fekk fa photo waa ji ndekete yooyu rakk ji ab sàcc la marchandise sum sàcc la ko may fekk fa photo waa ji waa ji di photo di poste di photo di dugal moom xamut ni liñ ko jox alali sàcc la ba benn bis ay jege ñaale ñaari commerçant yi nga xam ni toj nañ seeni boutique ñoom yàgg nañu fréquenté ci boutique yooyu ñu xàmmee yére yi ñoom ñoo woo borom boutique yooyu ni leen am na benn waay boo xam ne fan yi mi ngi dugal ay photo ci Facebook bi te yére bu mu sol tey du ko sol suba te man am na ci chemise yoo xam ne sax wala pantalon yoo xam ne sax seetlu woon nañ ko ci seen marchandise yi est-ce que mënu leen a jéem a saisir police rek ñu def enquête ba xam waa ji fu mu jënd yére yi ainsi de suite ndax ni muy soloo fan yi daaw ni solo ñun mësuñu ko gis mu solo noonu waaye fan yi port vestimentaire am da ko changé complètement rek MK Njaay mi nu njëkk a toj bitigam ca sal yi ni ah soxna si KH Mbay moom itam ca mbuur daa di def lu ni mel ñoom ñaar ñu sol seenu dàll dem def plainte déposé ko ci commissariat bu Saly Portudal ñooñu jël plainte bi daal di interpeller sa waay maanaam dee faal magi sàcc bi ni ko waay yow ñu dañ laa gis ngay photo rek di dugal ci réseaux sociaux yi xam nga preuve à l'appui doo miin fekk na boobu xam naa ñàkkul ni enquêteurs yi envoyé nañ leen yenn photo yoo xam ni par preuve la ñu ko dañ la seen ngay publier ci réseaux sociaux yi publication yi bari lool te yow loo sol tey boo boo ko simee doo ko solaat lu waral loolu ko afan nga jële yére yi mu daal di bàyyi nag mos ba daal di laase bomb ba mu ni bépp yére bu ma sol sama rakk moo ma ko may ku ñuy wax deefaal ñu ni ko ah ñu daal di woo deefaal mu ni sama rakk moo ma ko may ñu daal woo deefaal jotuñu ko Yaay Faal nag bi ñu ko jotee ñu ñu ñu jot dee Faal mais ba tey mënuñoo am ci moom dara léegi gars yi aussi amaat beneen renseignement comme si que ñoom dañuy fréquenter ay boîte de nuit te bépp yére bu nu sàcc ci ñaari boutique yi ñoom ñett ñi ñoo ko jël ci boîte de nuit lañu jàppee. B Cissé M Dieng ak A Fall ci boîte de bu nekk ca Saly Portudal fa lañ leen fekk jàpp leen juróom-ñeent fan ci weeru mars teg leen loxo biñ leen tegee loxo garde à jeex ñu yóbbu leen kaso indi leen nag tribunal bu Mbuur doon leen àtte bërki dem dee Fall mi nga xam ne mooy rakki afaal moom daa mujj samp ay xel waxtu yi nga xam ne ña ngay jàpp ñële waaye nee nañu mësta bokk ci sàcc yi loolu sa juge bi précisé na ko xëy ne dañoo sàcc may ko mu sol waaye cerveau bi B6C M ñoom dañoo di tuuma yi ñu teg ci seen kaw yépp wane ni ñoom seeni loxo dafa set wicc waaye nag seen papa papa yi Emodien moo gën a daaj pont bi nee na leen daal ci biir tribunal bi doomam moom ak ay xaritam ay sàcc lañ parce que du ñu jug heure boo xam ne nit ñi dañuy dox bu suuf seddee la ñuy jug te li nuy roñ di indi yépp alali sàcc la moom xam ne ak naa xam ne ay sàcc lañu lool la papa mu M Dieng daal di wax loolu nag moo leen gën a rey procureur de la république nag ni kon nañu appliqué loi waaye mbir mi délibéré nañ ko fan yi dinañ ci ñëw suñu ko jàppaatee mbokk yi mu doy waar ñetti ndaw amuñu benn xalaat amuñu benn gis-gis jël ay boutique yoo xam ne seeni moroom a ko chargé ay yére ba mu fees ak i dàll di ko sàcc di def ci seen bopp far kenn ci ñoom yàlla weer ko mu daal di jël ay yére di solo ko simmiku ndekete yoo ka ko ko may alali sàcc la loolu moo leen feeñal ban jàpp leen ci boîte de mu doy waar liñ fay wax rek mooy tayel gi nga xam ne parfois jeunes yi dañ koy tayel xam nga dëkk bu mel ni mbuur li nga fa mën a def am dara sutur lu bari boo tegee liggéey bi ci yoonu sell géej gaa nga fa mën nga dem tefes di yenn waan wala nga dugg ci njaayum jën hôtel yaa nga fa mën nga fa nekk nekk ci restaurant yi liggéey wala nga nekk ci environnement bi di defar nettoyage ak yooyu yooyu yëpp ay pexe la mën nga dugg ci sa ambulance ndax mbuur Carrefour la kuy dem Kaolack mbuur ngay jaar kuy dem Joal mbuur ngay jaar ainsi de suite ñëw Thiès mbuur boo jugee ci zone yooyu mbuur ngay jaar kon li fa mën a def yow jeune pour nga tekki bari na waaye déedéet naa bëgg lu yomb naay am xaalis te duma ñàkk mooy toog muy dox le le concept toog muy toog muy dox parce que toog muy dox waralu tey say moroom liggéey jigéen liggéey xëy di ci lu nga bàyyi ba mu tëddi nelaw nga dajj ko ni ko maa la ko gën a bëgg waaye nag xam ngeen ni ñàkk du réer boroom moo tax ngeen weeru beneen bi ci des lii day yee bu baax a baax jaaykat yi yére yaag boutique yi alimentation yi ñëpp ñu jël seeni garde te xam ni ab saay-saay moom doy na waat te mën na la bett à moment kon mbokk yi fii la ñu yem rek ci li nga xam ne moo di jàngat bi di wax ngeen ni yokk abonnement yi di partager suñuy vidéo waaye ngeen di aimer ak di commenter saa suñu xëyee man di leen euh, bégal ci wàllu fait divers ñu ngi leen di jaajëfal di ko sàkku ci yéen di wax itam korite gi nu génn yàlla na nangu suñu ñaan yépp ñu teewe ko ati at jéggeen ñu suñuy bàkkaar biir ak biti yi ngeen jëf dal leen ak jàmm ci xibaaru bës bi yemook alxames fukki fan ak benn ci weeru avril atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent li ci gën a fës bokk na ci ab xeex bu rëy bu amoon ca diwaanu ndakaaru genn gune gu am ñaar fukki at moom lanu fa jam ca fu ñuy wax waxi naam Nimzat ca quartier Baylaay bile xibaar nag Seneweb daal di koy fësal nee na li ko sooke daal ab xeex bu dox ci diggante xale bi la ak moroomam xeex bu metti sax ba moroom ma daldi koy jam paaka ba mu ko jamee euh, gune gi ñu daal di ko doon rawale ci l'hôpital ngir faj ko waaye daa mujj daal ñàkk bakkanam euh, ginnaaw nag ay waxtu yu néew ca ba mu amee bile gaañu gaañu euh, foofu nag ca Waxinam Nimzat ca quartier Baylay police daal di nay ubbi ab l'enquête ngir nag mën a gis gune gi nga xam ni dafa def jëye ji ñàkk ni dafa samp ay xel. bu ko defee ñu man ko teg ci yoon ci ni yoon santaane boo fàttee bakkan ak euh, anam wa nga ko fàtte ak euh, lu tax nga jublu ca loolu lépp rek euh, police bu Nimjat ña ngi cay wéy di def ab liggéey bu am solo ngir gën a mën a nit bile circonstance ca diwaanu Risaatal foofa day secteuru sanitaire ba defati na lu rëy lu amati solo jenn soxna ji wuyo ci Fatou Bintou Ba toll ci ñaar fukki at moom itam moom moo fa mucc lu toll ci ñeenti bant ñetti ay jigéen leen kenn ka góor la ah, bile xibaar nag nekk mbégte loolu ci xarañteef ak liggéey bu am solo bu way médecin yooyu di def ca diwaanu Richard Toll ah, foofa noonu nag gune itam mu nekk mbégte bu baax a baax ci seeni wayjur waaye képp ku dëkk ca diwaan ba ndax gune yi ñoom ñeenti bant yooyu yëpp macha allah kenn ku ci nekk rek indaale nga bakkan waaye itam amoo benn jafe-jafe ci sa wàllu wér yaram loolu day firndeel rek ni liggéey bu am solo secteur sanitaire ba ñu ngi koy liggéey ca diwaanu Richard Toll tënku nag ci seen eh, li nga xam ni moo di volonté waaye seen expertise ngir nag eh, lan leen jàngaloon ci wàllu médecine ñu daal di koy appliquer jëm ci askan wi xettali leen. ci waxtu wi nga xamee ni soxla nañu ko rawatina nag jigéen ju wéeru tollu ci mucc bile xibaar nag jaraa eh, jaraafu dëkk ba ak képp ku bokk ca diwaan ba rek am nga ca mbégte waaye itam encouragé nga bu baax a baax way eh, docteur yooyu ñu gën a yokk seenu xarañteef waaye gën a yokk itam seeni jumtuwaay eh, l'hôpital bi nekk ci niveau boo xam ne niveau bu am solo lay doon loolu nag ñoom dañ koy sant yàlla ñoom way takku ñoom ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum santé ngeen baal ñu ndax nag euh, li nga xam ne mooy liggéey bi rek mooy lañ leen jàngaloon rek lanu tari mooy xettali nit teg ko ci li nga xam ni moo di yoon wu jub waaye yoon woo xam ne yoon wu dimbalante la waaye nag ñu sant ca suñu borom bu baax a baax ndax moom mi leen dimbali ba césarienne bi daal di réussir foofu ci l'hôpital bi nekk ci Richard Toll mu nekk mbégte nekk contentement ci képp koo xam ni rek bokk nga ci askan woowu ñu leen wooyu blouse blanche ten di ay docteur ak mbooleem hôpital bu ne ci biir réew mi di def liggéey bu am solo bile ñeenti gune yi nag jamono bile ñu ngi ci seen eh, loxoy yaay mu nekk mbégte bu rëy ci seen yaay ñett ña jigéen lañu kenn ka góor la mbokk yi eh, xam ngeen ni tam démb la woon bis bi nga xam ne ñu ngi doon màggal korité di njeextaluk eh, koor julli gi nga xam ni tey jile moom moo yombalal suñu koor ak li nga xam ni noonu leen doon jaamoo yàlla muy julli iit démb nag euh, ki nga xam ni moo di euh, njiital réew mi di euh, Bassirou Diomaye Diakhar fay daal na koy jullee ca grande mosquée mu mel ni nag bii lee jumaa itam bari na njiitu réew ci réew réewum sunu gaal yoo xam ni bu événement buy mel noonu amee korite tabaski bari na luñ fay dem daal di julleendoo ci imaamu ratib ba ak kilifa ya nga xam ni ñoom ñoo fay daje ba tax nag bisub eh, Aïd el-Fitr bile eh, Bassirou Diomaye Diakhar fay daal dina koy julli ci àllarba ji fukki fan ci weeru avril imam Moussa Samb daal di jiite julli ga moom day ca sermon ba ma nga cay indi ay ponk yu am solo bokk na ci li nga xam ni moo di eh, defar diggante yi waaye rattaxal xol yi bu baax a baax laata nag muy ñëw indi ab leson ci bale bi nga xam ni Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi muy wut réew mi yoroon na ko doon ci campagne imaam nee na bale nag ci ak euh, garab lay jugee ci branche bu fa jugee ñu daal di koy tas fexe ba dajale ko mu nekk wennoo say nee na foofu jàngat ba mu cay def rek mooy ki nga xam ne moom la yàlla dénk réew mi la mu doon woote mooy ñu juboo nekk benn waaye lu ñuy def ñu àndandoo ko ci doole waaye àndandoo ko ci pas-pas ak ay xalaat yu rafet bu ko defee réew mi naat lu ni mel nag mu nekk métaphore boo xam ne kawe na loolu waaye nit ñi ña ngi ciy wéy di def ay jàngat ndax nag wax ji moom foo ko natt rekk ci kawe ak xam-xam daa dina fa yegg ba tax na nag yile kàddu amati solo loolu laata nag muy ñaanal njiitu réew lu yees li di Bassirou Diomaye Diakhar Faye yàlla mi ko dénk gile postu ak yaakaar yi suñu gaal gépp lépp woyof ci kawam mu am ak réussite ci li nga xam ni moo di ak euh, gouvernance am ba tey ci euh, kàddu yi nga xam ni imaam Moussa Samb doon na ko yëkkati ci kanamu kilifa yi rafet na nu bu baax a baax itam euh, dallu geeg dallu Basiru Jamaay Jaxaar Fay ak teew ga mu teew ci biile barabu jàmm yàlla waaye itam euh, wax dëgg ñaanal na itam na mag bi képp ku ca bokk ak kilifa diine yi kilifa aada yi nekk ci biir réew mi ñooñu ñëpp rek kenn ku ci nekk yëkkati ngay kàddu démb ci bisu it bi daal di ñaanal ki nga xam ni moo di njiitu réew lu yees li ci kaw loolu Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal na yëkkati kàddu waat bu baax a baax li nga xam ni moo sos sunu réew di réewum sunu gaal waxitam li nga xam ni moo am ci diggante yi ak mbooleem diineeg mbooleem euh, lu waay gëm ñëpp nekk benn demalante beeg dikkalante bi muy dëkkinu rafet laata nag muy woo bépp sénégalais ñu daal di sàmm loolu ndax nag nee na loolu mooy jàmbi réew mi moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee na day lu ni mel tax na sax ba àdduna bi nawloo nanu bu baax a baax senegal ci li nga xam ni mag ñi daal di nanu koy liggéey ba fi nee na itam bépp sénégalais daal na ngay sàmm loolu mu nekk héritage bu sacré waaye héritage bu précieux moom chef de l'État di Bassirou Diomaye Diakhar fay laata muy daaneel ay kàddoom nag rafetlu na bu baax a baax taxawaayu nitu daara yi waaye kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak bépp kilifa diine ak biine euh, boo mën a bokk ci Sénégal rafetlu na bu baax a baax seeni taxawaay seeni pas-pas yu am solo ci mim réew candidat bi woon di président Idrissa Seck di président parti réew mi moom day daal di nay julee fi nga xam ni at mu nekk fa lay jullee muy euh, mosquée Moussante foofu ci jumaay Moussante nag président Idrissa Seck moom itam ba mu jullee ba pare génn na daal di taataan ay kàddu rafetlu bu baax a baax gouvernement bu bees bi lay ñaanal leen encouragé leen waaye fàttaliku leen ni leen promesse yanu defoon ci sénégalais yi ba sénégalais yi am yaakaar fan leen di leen xaar nañu ko matale ndax mooy li nga xam ne moo gën ci askan wi moom président Idrissa Seck itam wax na ci li nga xam ne mooy ëllëgëm ci wàllu langue politique ci sunu gaal nee na daal ndongo daara boo xam ne dafa jug ngir defar réewam ak saa su ko réewam soxlaa rek mu mën a dugal ay yoxoom kon nag moom day daal di tënku ci loolu rek lu ni mel nag fësal na ko ginnaaw ba mu doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi ma nga àndaloon nag ak ñoom Yankhoba Diattara ñoom Aly Ngueye rek ñeneen ñu waaye itam mu fekk ci jumaa ji rakkam wala ay rakkam ku mel ni docteur Babacar Diop jaraafub Thiès ville waaye ku mel ni président Abdoulaye Dieye njiital AIBD di aéroport international Blaise Diagne ñooñu ñëpp ànd na ak ñoom ci bis bu sell boobu ñaan yàlla Sénégal jàmm am fi rawatina diwaanu Thiès ba tey Thiès gaay jëwriñ ji nga xam ni moom la ñu dénk lu jëm ci wàllum énergie pétrole ak mine di le ministre biram sulay Diop moom itam daal di nay jullee ci jumaay kër maam El Hadj Ndiéguène ci diwaanu Thiès di jumaay maamam di barab boo xam ni itam ponk boobu maam maamam moo ko daal di sànc ngir nag ñu gën ci mën a jaamu suñu borom waaye defar diggante yi ak rafetal moom Birame Souleye Diop itam bi nga xamee ni jël na kàddu wax na daal jëm ci li nga xam ne moo di ay parrainage festif yi nga xam ni des nañ ko nemmiku ci biir réew mi mooy tudde nit làmb tudde nit ngénte daal di leen nit waaye tudde nit li nga xam ne moo di ab final nee na yooyu yëpp rek nañ ko tegandi ci suuf ndax taxul ñoom ñu jóg di liggéey nee na képp kuy taxawal ay làmb wala ngay taxawali football wala ngénte moo xam da ngay tuddee moo xam da ngay koy parrainer nee na loolu lépp nañu xam ni ñoom taxawuñu pour ne événement yooyu ndax nee na gouvernement bi nga xam ne moom la Bassirou Diomaye Diakhar fay jiite day doxewul noonu te fas yéene wut doxe noonu moom biram Souleye Diop daal nee na bëgguñu daal benn tur wutuñu ko ci lu dul njariñu senegal ndax nag bu fekkee dañ ni la del jubal di jubbanti tey sellal nee na foofu dong lañu war a mën a yem moom jaraafu cees noor loolu de la xamle mu nekk vidéo boo xam ne nag àdduna bépp partagé nañ ko réseaux sociaux yaag lépp docteur kër Diop daal di jullee moom itam ci jumaay mu sante ba mu jullee ba pare daal daal di nay Euh, plaidel ñi nga xam ni ñooy liggéey ci collectivité territoriales yi di liggéey ci maire yi am jafe-jafe loolu ci wàllu intégration fonction publique locale moom jaraafub Thiès bi day nekk na seenub avocat démb gannaaw ba mu jullee ba pare fàttaliwaat bu baax a baax kilifa yi ngir ñu bàyyi xel bu baax a baax fonction publique locale ndax nag mucc ki nga xam ne la moom mooy liggéey ci moom mooy liggéey ci maire yi tey itam wàllum avancement ay salaire ak yëpp rek nekk lu am solo ci moom moom docteur Babacar Diop nag nee na problème la boo xam ni gêné na loolu njiiti maire yi nga xam ni ñoo ne ci Sénégal rawatina fii ci diwaanu Thiès ndax nag gouvernement Macky Sall daal dafa signé woon ay accord ak syndicat gi boot collectivité territoriale yi waaye nee na tey jile la mbir yee gën a ñaay nee na ay problème moo am ca yile accord ndax nag travailleurs yi ñoom la laaj mooy yokkum salaire waaye yokk seeni paspas pas ak seeni gisin ngir seen ëllëg gën a mën a neex mbokk yi lii moo fi gënoon a fës ci wu bés bi ñu am mbégte doon ko faram-fàcce di wax lu jiwe jeexul jugu fa li duuf ci nag wi xajut ci cin li suñ ko fi naree xaj-xajal sunu ñulub day tuuru sunub taal fay di wax suñu mbokk cekkeen yeeg njaween na déwénati leen ndax def ngeen ndànk démb ci li nga xam ne moo di xéewal yu wàcc ci bisu it bi te ci doon xewlu ñu ngi leen di jox dig daje ëllëg ak beneen ëttu xibaar ci suñuy plateforme jërë ngeen jëf